Euh, fii ñëw nag mooy di sant suñ suñ fàllu mooy ci acte bii mu def ci jëm ci wàllum lii mu ñu defal tey comme ni ko waxee man c'est la première fois day lu mel ni maa koy doog am maa koy doog gis ci karaat jug ne dama lay jàppale cël ci laaju la ci benn euh, tegu la ci tegu ci benn coono lewu la ci leen ma lii ba ma ci doog a jot dañ ma woo téléphone rek ne ma sëñ Fallou Mbacke dañoo soxla nee na ngeen ñëw ba ñëw la lam ñu wax mooy dama leen bëgg dimbale dimbale bi mooy seeni jafe-jafe ñu ñu jooytu ko suñuy jafe-jafe mu ne dinaa ci taxaw kon loolu nit bu la bëgg dimbale dalay danaa la ah danga may defal lii ma defal lii waaye nag dafa taxaw ne laaj ñu suñuy jooytu ñu ñëpp kenn ku ne wax mu taxaw ne dinaa leen ci dimbale ndimbal loolu nag ba tey loxoom jugu ci di wax ne daal famille Armadio kontaan nañu lool ci jàppale yi nga taxaw ne moom moo ngi leen jàppale muy lu am solo loo xam si ne dañ ko soxla lool lool lool lool ndax ku ne xam na ne euh, Armadio moom boo gisee fii ci ci ci ci département la bi dañ fiy néew doole lool ndax bu ñu nee tey lu mel nii tey ñu ngi ko fi doo gis kon xam nga ne kenn ku ne bi nga fondage bi nga defee sa dossier ñaat at la ngay doo gis lu mel nii tey kon xam nga ne ndimbal amu fi jàppale amu fi. Euh, comme ni ko suñu naataango yi fi jiitu waxee rek euh, foofu la ñuy jaar euh, ndax taekwondo karaté kënf jàpp naa ne seeni jafe-jafe amul fu ñu ko jooytuwul. waaye pour ku leen ku taxaw pour jàppale leen ci non jafe na trop wala man moom gisaguma ko boog ba lieu boo xam ne sax fa la ñuy fa la ñuy daje sax man fa organiser ay compétition wala ay programme sax digg nañ ñu ko fii mais ba tey jii nii ñu ngi si topp di daw yow nag danga ñëw woo nañu tey jii dama leen di jàppale waaye tey jii firnde firnde jaa ngi nii du caagi ne politique moo tax nga dañuy jàppale waaye xam ne dañoo bokk ci ndawi Mbàkke yi te jàpp naa ne am réew moom ku ko bëgg a développé wala ab dëkk faaw nga jaar ko ci ndaw yi rawatina ci ñii di def sport nga xam ne eh, li ñuy jàngal discipline la di jël ay xare di leen tàggat di leen yar di def si ñoom jikko ju baax jàpp naa ku leen jàppale rek mooy jàppale nga société bi loolu ñu ngi la ciy sant bu baax a baax di la gërëm bu baax a baax di la ñaan di la ñaanal it nga gën koo man ndax li ñuy lépp dañ koy def benn plan ñaan plan maanaam département bi yàlla dogal na plan de plan développement bi euh, man maa koy bind ak samay collaborateur ak man ma ma ma administration bi ndax dëkk bu ne man Sénégal day am plan national ñaan Macky Sall bi mu nekk amoon na plan Sénégal émergent je crois que Diomaye bëkki dem génn na génn na benn plan moom tamit waaw pour boo boo ne président ngay gën plan bi ngay defaree Sénégal donc ñun aussi en tant que département aussi danañ gën a plan de développement waaw ñu ñu développé sport bi ñiy def revue jeunesse bi wala wala mbirum xëyam gone yi wala mbirum jigéen ñi walla njàng mi wala mbirum santé mbirum tali yi mbirum assainissement lépp day am plan bu ko tënk loolu nag yàlla na euh, ñu ñoo koy tënk incha allah te am na bu ñu war a beseraat fan yi bala yàgg kon su ngay beseraat moom plan boobu parce que cinq ans yu ne da ngaa war a beseel plan bi ndax ndax plan bi day évoluer ndax yeneen bëgg-bëgg day génn wala ñu yokk loolu nag na nga ko war a jël en compte ci booy yor booy yor ab kuréel nga yoru réew wala nga yor département wala commune da nga war a bàyyi xel ci plan de développement bi nga tënk plan boobu nag balaa yàgg danañ ko baisse la maanaam réactualiser ko te loolu bi ñu koy def tamit day nekk processus maanaam participatif maanaam tous les acteurs yi évolué ci département bi muy sport bi mi mi mi mi ñëpp daal dañ leen woo kenn ko nekk joxe sa xalaat par exemple e, e, sport bi ci wàllu arts martiaux yan solution ngeen mën a proposé pour problème yi ngeen am ñu mën ko mën ko mën ko surmonter ak naka la ñuy développer sport bi yooyu di ak yeneen ñëw ñu toogandoo xalaat ko ñu tënk ko ci ba ñu tënk ko parce que lu ci nekk aussi dañ koy xayma ci xaalis def ko budget chaque année ci cinq ans yi nga ne chaque année naa def lii ci nangam naa def lii ci nangam donc loolu aussi bu ñu def incha allah da ngeen bokk ci les acteurs yi nga xam ne euh, danañ ñëw. war a jox seen xalaat ci diagnostic bi ñu def kon donc maa ngi leen di souhaiter euh, ngeen ngeen ngeen am ndam vraiment ci lépp lu ngeen di def te te loolu lépp nekk ndamul département bi parce li ma ñor mooy ndamul département bi di leen tàllal loxo tamit ci lépp loo xamante ni wax di yàlla ñu ngi koy sàkku ndax ñun lépp lépp lu ñu sàkku rek askan bi tax ñu da ko def sàkkuwuñ dara rek ngir falu déedéet ndax sëñ Tuubaa fal nañu defal ñu teraanga ba pare alors boo gisee ñuy politique parce que dañoo bëgg xam nañ jafe-jafe yi bëgg jàppale man population yi ak njaboot Serigne Touba parce que kon nag loolu jàpp naa ne ñi jëriñ ngeen di dooleel ngeen di dooleel ñooñu ñi nga xam ne yeneen dëkk ak ñoom di leen dooleel ñu gën a am doole di leen jàppale daa gën a yenu maanaa jàppale ñeneen parce que ngeen ñëw fii suma bureau moo gën a yomb ak ngeen di dem fii dem Thiès di seeti le président conseil départemental moo gën a ngeen dem Louga di seeti un président conseil départemental bu ngeen demee Louga di seeti président conseil départemental yaakaar naa doon recevoir donc fii moom seen kër la bu ngeen heure bu ngeen di xam ne nga fay ñëw kon nag lépp lu ñuy wut rek wutuñu ko rek ngir euh, bëgg ndomb tànk déedéet dañ koy def pour xam nañ ne war nañu indi suñu contribution euh, ci solution man solution na jafe-jafe am ci bi loolu moo tax ñuy yëngu ci wàllu politique wax dëgg yàlla ñu ngi sant yàlla nag comme ni mu ko waxee léegi def nañ ci parcours boo xam ne nii wax di yàlla ci département bi fii néew nañ ñu ko am waaw comme ni ko suñu mbokk waxee léegi maanaam lépp li daal li population yi joxe ci nombre tàng jox nañ ma ko ba mu président de la république dong dong lañ ma joxagul de la république dong lañ waaye lépp loo xam ne daal askan wi da ngay joxe mi président communauté rurale mi maire mi président région bi ba aujourd'hui département lépp man askan wi jox nañ ma loolu nag xam na ne donc loolu laa wax léegi donc amatuma kon man euh, lu may prouver ci politique donc parce que ñaari mandat ñetti ñeen ñeenti mandat nga di ko def parce que da ngay liggéey euh, donc ànd ak ñuy liggéey nag daa ëpp solo di ànd ak ñoo xam ne ni ñu ne wax rek comme ça mais ñi def résultat dëkk ci dëkk bi ngeen xàmmee leen di doomi dëkk bi yaakaar naa mën nañu dooleel politique parce que bu ngeen dooleel ci politique ñoom ngeen dooleel yàpp naa ne du dooleel euh, ku dëkk ci dëkk bi daa gën a euh, yenu maanaa di dooleel ku dëkk Tambacounda wala Ziguinchor wala wala Dakar wala wala feneen feneen mu sens parce que fii moom ñun ñoo koy defar ñun kenn kenn ñu defaral dëkk te bu leen yaakaar kenn ñu defaral la ñun ñu ñoo defar dëkk bi man ak yéen ak ñeneen ñooy ànd borom xam-xam borom mi xalaat borom mi doole ñu boole loolu defar dëkk bi waaw loolu loolu bu leen yaakaar ne kenn danañu defal dëkk bi bu ñu nax suñ bopp dëkk bi ñoo koy defar suñu bopp département bi ñu ñoo koy defar suñu bopp kon nag na ngeen bokk ci aussi ñiy defar département bi di am xalaat bu rafet di ànd ak ñi bëgg defar département bi je crois loolu daal may message bi kon asalaamaaleykum wa rahmatulah.